asalaamaaleykum euh, ñu ngi fii euh, stade euh, Alassane Digo, n'est-ce pas bu euh, assisté deuxième marche de la de de de zone 2 donc ñu ngi nii face avec n'est-ce pas le le coach n'est-ce pas de l'ASC Tesito coach tur bi naka Babacar Ndiaye la seen bay. mooy coach ASC ASC Tesito ay coach noo gisee première mi-temps bi. waaw première mi-temps bi moom ah, sama équipe bi dama gis que ne sama sama sama central yi. dañoo yéex dugg si match bi mais au fur et à dem yàlla defar na positionné wu normal gars yi ñu si match bi tempo bi ñoo ngi ci biir tempo bi te xam naa deuxième partie bi nii xëy na dina changé lu bare bare bare. très bien bon coach euh, tey mooy say ñaari combien de journée. tey mooy ñaari deuxième journée. mooy deuxième journée. journée bi défaite la am. deuxième journée bi maa ngi nii di daw jeexagul euh, jàpp naa ne incha allah yàlla moom si may ndaw. d' bon dañ la mëne woon nga nga égaliser. ma mëne après ma jëli ko. Euh, très bien c' bon donc voilà coach euh, ASC Testo la ñuy waxal nii. dem jël beneen coach bi production moo ñëw fii stade Alassane Djigo assisté match bi bu ñuy match bu am entre ASC Testo et ASC Djigo donc mi ngi nii jàkkaarloo ak coach ASC Djigo donc coach tur bi naka la. ngi tudd Mafalka. tout d'abord maa ngi saluer cette initiative initiative bu nice euh, de leen remercier je je m'appelle Mafalka waaw. très très bien coach tey ce sa ñaatakeem journée. waaw ah, tey sur une deuxième journée ah waaw ah, nos première journée dañoo joué ñu def 0-0 Nous sommes une deuxième journée instant bi ñu ngi deuxième période. première journée bi da ngeen def nul tey euh, match bi mu ngi daw pour l'instant un but par un but partout yaa mëne woon ñi comment ça passe. waaw ça va ah, parce que premier mi-temps bi ñu ñëw après ñu xaw a lâché tuuti gars yi profité ci benn erreur euh, défensive après gars yi égaliser quoi. xanaa di saluer initiative parce que nawetaan moom dafa nekk activité de vacances boo xam te ni day permettre élèves yi étudiants yi professeurs yi xam ak ñëpp ñi nga xam ñoo ko seq ñu ñu di euh, di fo parce que football aussi avant tout jeu le sport di dajale koñ yi ñuy fo entre amul violence amul dara ça se passe bien quoi dans l' xam nga